Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi le bouton abonnement et te bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir tarder. tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. Rama Diop dafa sadik de mais Rama na xam nga lan mooy pour gis nga Rama Diop même bu bu fekkoon ni maajoor euh, mère Pa Birahim takk na mère Mariama dina ànd ak Naar Diop xeex joor ak yaayam waaye xol bi du mën a bëgg Naar Diop ndax Naar daf ko dund loolu metti Naar moo naawta lool te moom war na mère Mariama mère Rama sax moom warul fiir warul fiir ndax Pa bu fekkoon ni xelam mu keneen kon waxuma la mère Mariama rek waaye takk na keneen. waaye moom it dafa moom daal compliqué na daal compliqué na trop Marème Diop na warul woon a doxalee noonu man wax dëgg yàlla sama dafa ma neex waaye daal instant bi daal commencé dugg affaire de jalousie si digganteem ak joor te loolu amul ndax Fanta Diallo moom moo amul place si kër ga Fanta Diallo amul fa place te Fanta Diallo bis bu ko maajoor takkee du dem. waa xam nga maajoor lenn am na ci mooy kii bi bi xam nga xam na maajoor fi mu jaar fépp xam na ko. xam ne naar jóob lim def lépp xam na ko xam na li xab si def kon tey bu yaa ñu ngi tegaat problème boobu hmm? kon policier bu fekkee dossier boobu dem na ci moom su ko liiree rek dana xam ne ñii seen dil normalut ndax ñoom ay dili kese la ñuy teg benn deuxièmement bi ndaw soosu noonu xam na ne ñoom am nañ alal dana fexe ba boole ko ñu récupérer alal ji mais maajoor bu muusee comme que yaa ma wax na ko loolu bu muusee bu ñëwee day wut fu mu videwaat alal ji ci jiwaat beneen compte xam papam compte am la def alal ji day wutaat beneen compte def si alal ji compte boobu mën na nekk compte yaayam wa illaa mu nekk compte joor xam nga li mun na xam joor moom alaakuli aalin maajoor joor lay doon su ko ubbee si beneen compte rek dana mën a dem mais pas mu nekk si compte am moom mën nañ ko vider parce que kooku noonu. ndaw suus mën na jaay xel yaama teg ko dil boole ko beneen waay ñu lekk xaalisam yaama foofu lay mujj waa soxna si li nga wax dëgg la mais gis nga Rama Diop du masa ànd ak Naar Diop ndax metit bu mu masa daj ci àddunaam rek naar moo ko ko naar moo sàcc maajoor dem jaayi ko Rama Jóob naar moo ko naawtal ba mu dem téere ji dëkk boobu noonu muy wax yooyu yëpp su ko xalaatee te imagineel ba mu réeree bañ ko naawtalee dañ ko jëloon ki kidnappé ko dugal ko ci benn kër boo xamante ne nii xamoo sax fan la nekk ñu téye ko di ko violé foofu gis nga viol boobu day jékki-jékki muy ñëw ci xelam ak lu mu nara nara nara nara supporté naar bés bu xelam demee ci métit yooyu mu doon dund du mës a ànd ak naar non moom kay xanaa day jël yoonu boppam wala mu seet keneen ku mu aliyel mais pas naar Diop Rama Diop du mës a ànd ak naar Pape Birahim nag moom alalu ñoom fanjaay indo bi moom moo ko yore xaw ma nag ndax seen frère la walla ndax dégg naa ko am na benn jour am na benn jour mu ngi wax ak euh, kii bi mu mu nee naar Diop bàyyi naa la dootoo sama rakk mosuma sikk ak yow sa yaay fanjaay indo la xam nga mi ngi koy wax mu ngi naan ko waroo ko woon wax loolu dégg mu ne koy yow danga xamul ne ñoom naar Diop seen papa dañ ko jiiñ ne moom moo jur triplé yi waaye kooku juru ko sama chauffeuru papa bi juru ko sama papa moo leen jur xam nga waxoon na ko loolu kon donc ñoom sant bi ñu leen jox ñu ko jox mu doon chauffeuru chauffeuru papa yi eh, xam nga chauffeuru papa yi Birahim moom la ñu jox sant triplé kon ñooñu paa bi juru leen papa yi moo leen jur boo xalaatee foofu rek a affaire bi dina xaw a leer tuuti mais en tout cas moom. Lo ma na de moy, film bi compliqué na. Mère bi di gëwuma dina ko takkal dina ko takkal Fanta Diallo wala bu ko takkalee Fanta Diallo ah xana moy nekk borom kërëm way du doon maajoor ndax dama xamné kiñ koy may mom bugg ko fu mu ko fekk toroxal ko ah koko naka lay sëyee ak mom man ni lolo ma jaaxal ah xana lañ koy sëriñtu xonjom ko ba mënatu la def dara waaye en tant que maajoor mom mi ngi and ak xelam conscience tranquille Madiaw moom du takk Fanta Diallo du yaama du Fanta waaw Fanta Diallo moom moom li muy joué kenn mënu koo comprendre sax man xawma ban sens la am ci film bi daal jaaxal na ma noonu Mayow mu naan indi naa ndugg ceeb laa bëggoon togg mère bi naan ko <laughs> c'est laay lay togg dee na c'est bu toj lay togg xam naa ñoom jo moom ci la ñuy tombé waaye Fanta Diallo moom xoolal kooku moom mënu fa am dara dara xanaa ñu toroxal ko ba mu ne toot mu gén na abale xanaa xamul ne yaay kii yaay maajoor xamul ne xamul ne mariama ci seexi la bokk xam ngu ko moo tax ñu salte na loon xamul ko digg fu mu mën a salte na loon nu mën a takkee joor papa mën a bëgg a takk yaay joor loolu moo tax mën salte na loolu tax mën a na mais du moo tax mu ne waa loolu moom salte na di mais moom xamul ne seex yaay Maria yaay joor ci seex la bokk xamul loolu xamul ne mooy seexu naar bu xamoon na seexu naar da kay na seexu naar du ko takk su xamoon na ko takk te dina xam ne seexu naar moo tax du ko du ko a tak moo tax ma ne garmi mooy jëlaat Mariama faaw garmi rek mu a kii moom yaa ma woon ne garmi ko jur moom yaa ma woon gaw ma ne garmi ko jur. Mm. soxna May man laay dox di bëgg a yaamu man naka laay gisee joor di bëgg yaamu. man qualité yi ci jor la bëgg man mais qualité yi ci yaama ooma benn bu ma ci bëgg wa kay nga naan ma lan <laughs> soxla gi jeex de <laughs> ndam yeen kenn seen ndam jeex na waaj leen rek ñun li ñu assumé woon ak li ñu nango woon yeen bu yeboo ngeen waaj wa kay bala ñoo xamne ay jambar ngeen han ah, yeen fiñ leen jaarale ñun fiñu jaar biñ leen fa jaarale yeen nangu neena aw yoon ci yoon boobu rek ñun ay gaynde lañu de dañuy xuus jàll waa kay lu mu tar tar tar jaayante nañ ko ba génn ci instant mi mbégte mi rek moo des may leen ñu tuuti ñu def teew di ngeen xam ni lépp dëgg la. waaw man seen grand frère bi ñuy wër Pape Ibrahima laa ko teg moom laa ko teg ba léegi mais grand bi ci bii ci kaw nee na ma du moom nee na ma du moom mais ji moom alalu Pape Ibrahima ji la alal ji may sa di wër alalu ji Pape Ibrahima yor moom la may say wër gis nga te loolu bu sottee. dina gën a doy waar ndax gis nga am na benn suur maa joor ni papaam ah, mama mama mamaay beneen ak eh, naar jóob ay seex lañ papaam ne ko loolu bu jóg kaw bu mu mës a jóg kaw gis nga loolu ngay wax bu jógee kaw sama alal ak sa lépp lu mës a yor ci alal dina dina jeex loolu maajoor waxoon na ko ak papaam papaam ne ko loolu bu mu mës a jëm kaw su jëmee kaw alal juñ masa a yor dina jeex te alal sa alal moy sama alal legi nak lolo tax ma xamni alal ji may di wër moy alal ji pap ibrahim yor. tay lolo moy affaire bi gis nga Panda Diallo bu ko jo takkee du dem ndax xama bëgg bëgg moom kenn mën caa forcer nit te surtout gor gor mom bu la bëggul mom bay bo nga def nank rek jema a xama Fanta Diallo mom amu fa place kenn xaajalu ko ko fa maire bobu kay te maire bobu liko gëna yok def loolu. yaayu joor muy eh, paa bi muy fiiree looloo tax mais joor bu mu nangu bu man ni bu ma doon jooroon du nangu paa bi takk paa moom bu takkee mère moom ah caaf dina xam de. dama jóg kay dafa ñëwaale ak ak ay affaire am waaye dafa waroon a xool rek xam ne euh, maajoor kii joor doomu càmmeñam la mu jàppee ko comme ni mu jàppee maajoor bañ a dugal affaire si seen diggante ñoom ñaar. man nag xam nga la mooy sama problème garmi ndax moo jur yaama man moom fekk defuñu test ADN bi moom mënuma comprendre ni moom moo ko jur te loolu moom moom dafa dafa lii daal moom yenuwul maanaa boo yaama teg ci dëgër bopp may mun naka mu yaa ci jaama yaama dëgër bopp yaama de ci gàcc la dëkk ndeysaan waaye nee na daal li mu ngànk il faut mu dagg dina yéex a dagg de wala moom moomu mu dagg ndax ñàkk jom mënta weesu yow ngay xeex ci mbir ba dama fekk la ci nga ne nga tëyee sa loxo te nee nga doo wàccee sa arme jamais yaa ma daal a ngi noonu naar Diop daal man bëgg naa mu ñëw ci kër gi waaw naar na ñëw ci kër gi ñu defante ak moom ñun ñu am jël instant bi moom xoolal bëggee la ñu bëgg rek naar bu ñëwee foog naa dina régler naar naar est-ce que bu génnee dina ñëw xanaa Fabrahima mu ñàkk du dégg naar day génn waaye bu ko déggee feneen la koy yóbbu waaye du ko nangoo bàyyi mu ñëw ci kër gi ci li ma yaakaar parce que instant bi moom hmm, liñ ko dencal xajul ci moom de waaw liñ dencal xajul ci moom suñu fans bi xolal xolu na waaye lu muy xolu yëpp boo déggee ay kàddoom rek nga xam ne teg na ko caat ci temps waaw moom moom lu muy wax lu ne même bu fekkee fitna la koy waxee tamit boo ko déggee di nga xam ne lu muy wax nii dëgg la ci dëgg la loolu yëpp garaaw moom na ñëw rek dama bëgg mu ñëw régler kër gi kër gi ci boppam xolam moo jaxasoo jor na ñëw régler ma kër gi man lii laa bëgg man waaye daa tàng ak daa kiiw daa lii jor na ñëw leen ma kër gi seen jànq bu seytaane boobu kooku moom doyaguma dara gis nga ko commencé na euh, euh, euh, naan joor ma kii yaama sa dàll yi xaw ma lan yaama nee na ko xalaat naa tem tam ma jënd ko te bu muy ñëw nee na lu yoonam nekkul yoonam nekku ci waaye moom moomu xalaat naa mu jaxasewaat kër gi tamit parce que kooku moom mooy loolu Fanta Diallo moom ay mbiram sax bëgguma see dugg Fanta moom du dem fenn.